donc tey y a ne bu ñu président joxoon woon ay instructions que ne bu répondre à la provocation kon tey leneen la ñuy wax mais comme nous ñun dañuy yëngu ci benn parti bu ñu parti pour le progrès et la citoyenneté te ku wax citoyen donc wax des valeurs qui xamante ni moom lay incarner moo tax tey répondre à la provocation donc di ñu déggal aussi président si li ñu wax loolu répondre à la provocation donc tey mënoon na ñëw gis lii xëy def leneen mais duñ ko def donc ñu ngi bàyyi justice def liggéeyam boobu léegi aussi donc dañu gis ne PPC donc mi ngi def benn benn progrès donc si ci euh, politique bi muy def ci wàllu wàllu au niveau national comme au niveau local donc dans tous les plateaux on voit le président Seydou Diouf donc muy défendre politique gu Macky Sall xëy na peut-être am na ñoo xam loolu moo leen naqari ba tax ñu def ces actes là donc fi mu toll nii moom laa wax léegi sama camarade de parti mais gars yi fekkee ne aussi dañuy dañuy da am lu ñu bëgg a yàq ko yàqal Macky Sall mais Tëngéej fii amuñu belle cible pour le président Seydou Diouf parce que président Seydou Diouf rek ci plateau défendre le président Macky Sall défendre aussi li nga action président Macky Sall mi affaire enquête da ngay ñu def ko euh, li nga parce que lu bu ci kaw ci sa kaw mi yag euh, expliquer ce qui s'est passé mu président assemblée nationale yabal Nefi, le le premier vice président Abdoumba qui est la ba ci aussi am président Moussa Niasse euh, tous les députés m'appellent de partout y compris des députés de l'opposition m'ont appelé hier soir ce matin des députés de la majorité euh, les ministres m'appellent également pour euh, compatir et réitérer leur soutien mais surtout les Rufisquois de tous bords euh, ñoom nous. dañu

parce que jàpp nañ ne lii moo baax ci Sénégal ñu koy def loolu laa wax ne tey lañ gën a taxaw pour def ko nekk député bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bokk ci leaderu coalition Benno Bokk Yaakaar ànd di téele président Macky tey bu ñu tojoon sama kër fukki yoon ak juróomit fukki yoon ak juróom dafay yokk sama taxawaay ci wetu président Macky parce que jàpp naa ne li muy def ci réew mi ci liggéey di ko defal Sénégal loolu mooy yoon wu baax wi donc nit ñi nañu yemale mbir mi. ci affaire politique bu ñu amee lu ñuy manifester ñu politiquement mais violence moom képp ku koy Moi, mooy amoo argument bu dëgër par rapport à la vérité par rapport à l'histoire waaw PDS dafa woote conférence de presse di wax naan dañuy résistance mortal combat lu mu leen jaral nañ ñu ko jaral da nga dégg Abdoul Mbaye mu ne dafa conférence de presse né mortal combat lu ñu ko jaral nañu ko jaral buñu tok ci clavier yor ay clavier da nga dégg Thierno Alsan Sall wax ko da nga dégg Khalifa Ababacar wax ko kan ngeen dégg mu wax ko du Ousmane song ngeen dégg mu wax ko kon lu responsabilité waxuma même responsabilité directe mais traduction de ses propos ak fi tey mais c'est sa responsabilité qui est engagée moi je n'ai pas peur de mes mots c'est sa responsabilité qui est engagée parce que c'est lui qui appelle la jeunesse qui croit en lui qui appelle cette jeunesse à descendre dans la rue au nom d'une soi-disant résistance face à l'oppression amul oppression du Sénégal